xarit yi yéen ñi seetaan yéen ñi safoo seen site 28 nga xamante ne yéen a seen bi nga xam ne seen 28 pro. 53210 test. mbokk yi ci seen site 28 pro tv point com mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen euh, ganu campagne. হয়ে গেল Detanam ke wagwambia alusar Upallere fe kagal Famana suvel to yakete ngaha Detanam ke wagwambia alusar Upallere fe kagal Famana suvel to yakete ngaha Detanam pallere fe kagal famana sufel to yaqete ngaha Hafio win wahai ai bodalaya Hafio nyo ame bodalaya Papa mad anga nyo wan dis no tene

Wasn't this who's outside and fake? koy jam jogoy jabe ñuqel to da laana xollo me xaaga sam naan tey ji ñu ngi fii ci Gandiaye mu nekk comité local euh, boo xamante ni euh, nouvellement lañ ko door a installé mun na wax ne ci at la toll donc pour gunge leen également Euh, xamal population bi dëgg-dëgg lan mooy Croix-Rouge moom moo tax ñu ñëwoon fi daaw ñëwaat fi ren également pour gën a mën a suqali euh, comité local bu Gandiaye jàppale leen loolu moo tax ñu jël manœuvre départementale ñi ñëw fii ci Gandiaye organiser ko fi. Euh, donc dañoo soisir benn thème tudde ko collision de voiture loolu su wax ci baatu nasaraan mais liñ ci jublu rek mooy Gandiaye dafa nekk ci sur la nationale yoon bi daanaka dafa xaaj dëkk bi ñaar. képp koo xamante ni da nga jógee soow war a dem pénk fii ngay jaar mu nekk une grande agglomération ay oto ay poids ñoo fi jaar ay transporteur euh, mu doon route boo xam ne dafa dance lool te dañ cee faral di nemmeeku ay accident de circulation yu bari lu ci ëpp itam lu ñuy faral di gis mooy biis yi nu ñuy jaaree fii di daw alir bi dafa am doole et à chaque fois rës yu mel noonu su amee dañuy gis ne population yi dañuy jànkundeel ay jafe-jafe yoo xamante ni lu jëm ci wàllu prise en lu jëm ci wàllu euh, les premiers secours moo tax ñu gën a privilégier Gandiaye ci loolu gën a dispositif bi formation yi ñu koy faral di gën a accentuer su ko defee Gandiaye mun a am maximum de secourisme. donc def nañ fii euh, pratiquement ñett atelier ci terrain bi jàpp ñeent euh, lu ciy jiitu d'abord mooy dañoo gis ne yenn jafe yi nga xamante ne su amee nit ñi dañuy faral di jaxasoo di réero or que kuy xettali doomu aadama dañoo war a vraiment euh, euh, déggoo en synergie su ko defee jàppale bi ak wareef bi nga xamante ni moom moo ci war ñi mën kaa def ba mu doon ci anam yoo xam ne dafay mucc ayib su ko defee ñee loru ñu war leen mun a teg ci loxol kër doctor loolu nag lu ci jiitu moom mooy croix rouge te ku wax croix rouge wax démembrement jeunesse bi nga xam ne ñoom la ñu tàggat lu jëm ci wàllu mbirum secourisme ñi war a def li nga xamante ne moom la ñu wooye premier premiers secours mu doon loo xam ne tey jii dañ ko euh, natable fekkoon jéey yu mel ni yàlla tere yàlla tere su demee ba am lan moo ci suñ taxawaay ak nañ ko war a defee la ci jiitu d'abord dafa am benn service bi nga xamante ni moom la ñuy faral di wooye poste de commandement avancé poste de commandement avancé mooy yëf ya jéeya fa mu xewee suñu demee ba jële fa ñi nga xam ne ñooy aji loru yi ñu war leen fa indi Euh, su ko defee ñooñu noonu fegoog beneen service bi nga xam ne moom la ñuy wooyee prix maanaam fi nga xamante ni foofu la ñuy euh, xool ñi nga xamante ni euh, seen jafe-jafe wala li leen dal méngoo na ak loo xamante ni saafara jooni jooni la wala saafara soo xamante ni dafa laaj tamit ñu yóbbu leen ci yeneen anam su ko defee foofu la ñuy détecter lu ñuy wooye ay extreme urgence première urgence deuxième urgence ci yooyu lañ koy natable encore ñu indiwaat beneen poste boo xamante ni moom la ñuy faral di wooyee Euh, PC avancé point poste de commandement avancé mooy su ñu jëlee aji lor yi foo xam ne foofu lañ leen di jëmalee tamit ñu war leen a jox les premiers secours ba keroog ba ñuy faral di euh, daanu ci loxol kër docteur moo xam ay évacuation la wala ay ambulance ñooy ñëw jël leen sur place waaye laata balaa boobu lu jiitu ci ñoom dinañ leen ko defaral ñëpp xam nañ ne nàcc-nàcc mooy deret buy bal ball te deret moo yor doomu aadama lu ñu taxawal ci saa si la ñëpp xam nañ koo xamante ni nokki gi ak nooy gi dafa dem ba tagga témbee mu am lu ñuy woowee détresse respiratoire wala détresse respiratoire kooku lu ñuy faj ci saa si la laata muy àgg sax ci loxol kër docteur sinon la ko mooy bakkanam rot na ci ay damm-damm ak yeneen rëkk-rëkk yi nga xam ne daana dal di ñuy itam du doon loo xam ne faju saa si la waaye lu ñuy faral tamit di yóbbu ci wàllu waa kër docteur mais laata balaa boobu sokku si ci seen bopp tàggat nañ leen jàngal leen nan la ñuy def ba taawu damm-damm yooyu ba nga xamante ni dugg ci anam yi nga xam ne moom la ñuy faral di wooye complication yooyu lañ fi dajale euh, di ko won xale yi nan lañ ko war a defee tàggal leen ci yooyu itam su jee yu mel ni su demee ba am nan lañ war a mën a taxawoo ak seen askan wi euh, loolu lañ ci jub bon xale yi ñu ko doon tàggat le plus souvent euh, comité régional de la Croix-Rouge de Kaolack comité départemental de la Croix-Rouge de Kaolack dañuy faral di organiser lu ñuy wax ay session de formation en premier secours Kaolack nag mu doon une particularité par rapport aux autres régions on a l'habitude de faire des formations de six mois des formation dans les périphériques yoo xamante ni euh, dajale fa ay nit dina xaw a jafe dañuy profité moment yu mel nii lu mel ni ki ay vacances mel ni ki ay fête Noël organiser ay session de formation de dix jours te nag yàlla def na ne am na session de formation bu ñu organiser woon à Kaolack ñu ngi dugg ci seen sixième mois war a jeexal ñi ñëw fii Gandiaye tijji benn session de formation mu noon seen quatrième promotion je crois ñu war leen boole ak ñoom tàggal leen ci loolu kon nga jàpp ne ay ndaw la yoo xam ne dañoo duggal ci seen bopp yi xam bi nga xamante ne wàllu doomu aadama la ñu ngi koy wooyee les premiers secours ñooñu noonu tey la ñuy testé testé leen ci seen mat par rapport ak lu ñu leen dee xaar testé leen ci seen kattan maanaam endurance par rapport ak fu ñu leen di séentu mais testé leen également ak esprit vaillant boo xamante dinañ am yenn certain esprit de dépassement et d'abnégation pour agir et sauver l'individu loolu noonu ñooñu lañ fi dajale. Euh, secourisme euh, c'est pas une chose banale ni facile mu doon loo xamante ni je crois que mën nañ ko duppee ne jaamu yàlla bu mat sëkk la ndaxte doomu aadama moom la yàlla bind te mun nañ wax ne moom la yàlla gën a bëgg moom la yàlla gën a fonk ci la mu bind. kon su la ci yàlla boolee nga doon ndaw nga war a mun a taxaw doomu aadama ni yow nga jàpp ne c'est pas donné à n'importe qui bëri na say morom yi ngay romb ci mbedd mi yàlla xiiru leen ci li yow mi ci yàlla xiir na nga jàpp ne lii jaamu yàlla bu mat sëkk la kon ndeke soo ci dee dugg itam ga jàpp ne woote yàlla la kon nga war kaa motal comme ni mu waree loo ci séntu ak loo ci xaar nag nga jàpp ne ci loxo yàlla la nekk te yoonu ndaw du gaaw ñi bañ a gaawut ndeeneen dénkaane bi mooy tàggal la ci lii tamit tekkiwul ne docteur nga jàngal nañ leen ko ci les dix commandement il ne faut jamais jouer au médecin dañoo war a wu ci li nga xam ne mooy les premiers secours mu doon la xam ne na xeebuwul lu tax xeebuwul mooy ka njëkk ci victime mooy ka loru nga sowe ko andil ko lu ñuy waree premier secours ba teg ko ci aafiya ba teg ko ci loxo yu mucc ay ba mu àgg ci loxol kër docteur loolu tuutiwul loolu buñ ko xeebee seen bopp ñoom ndaw ñi loolu mooy dénkaan bi may joxe ñi gën a fonk lu ñu yor ñi xam ne c'est pas en à n'importe yi xarit yi yéen ñi seetaan yéen ñi safoo seen site 28 pro. asalaamaaleykum yéen ñi xamante ne yéen a bëggee seen bi nga xam ne seen 28 pro. 53210 test. mbokk ci seen site 28 pro tv point mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak ci seen ganu campagne.